école mooy que ne école boo xam ne ñu ngi ko créé depuis 1963 defar fa ay locaux yoo xam ni locaux yoo xam ne dañ ko tabax ci benn durée boo xam ne dañuy durée bii nii mooy durée d'expiration bi bu ko weesoo rek nit mënatu fa dëkk mais terewul état bi mi ngi seetaan mi ngi gis ni affaire yi mi ngi gën di délabré wu di jëm kanam am na loo xam ne moom soxlul sax ñu leen koy wax il suffit juste rek ngeen xool état bâtiment yi ngeen xam ne lii nit mënatu fee dëkk mais terewul état bi mi ngi jéem di def ay réfection naan day réfectionner barki démb Ndiaye lu ñu dal moom mooy suñu xale jigéen ñoo dugg seen toilette yi génn dal bi wàcc donc nekk na loo xam ne peut-être ñu ngi sant yàlla mais amaat na nit mënoon na ci ñàkk bakkanam mu nekk ay situation situation yoo xam ne ñu ngi koy dund te ñun SBI actuellement taxaw nañ teem ne dañuy xeex ndax dootuñ ko nangoote bi tey ni ngeen gisee nii fii lañ fanaan ak suñuy mbaad seddaay bi sonal ñu depuis barki dem ba tey fii lañuy fanaan ndax lan parce que ay autorités xam ne ñu ngi fii nii war ñoo gérer gérer wuñu ñu ngi fii à chaque fois di teg di ndaxante